man ku ma woo ci baay ma wuy si la allah ya allah Baramien TV yéen yéen a woonu baay allah ya allah. xool ñu ko ëpp daraja foofu mu ne xool nga xool ñu ko ëpp alal waaye nga xool ko moom lu mu nekk nekk xale xeeboo ko. nga jël jotaay bu mag bu toll nii nga jagleel ko ko moom na ma lay sant di la gërëm di sant mboolem ki nga xam ne teewal fi dañu jàppale képp la teewal kon mu na lay gërëm bu baax gërëm maa ne boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul na mu ngi lay gërëm di gërëm mboolem waa daayira bi eh, di la ñaan la sàmm la la laax la fi yàq gën la jubaleeg ki nga xam ne moom mooy sa sëriñ nga xam ne mu ngi toppee ko si pay yàlla bi di jëm si yow da nga jëriñoo mu ngi gërëm mboolem ñu fi teew am na tamit ay xaritam ak ay soppeem ñoo xam ne ñu ngi jógee eh, ay bërëb yu fasantikoo ñëw teew fii nee na mu ngi <coughs> si li nga xam ne moom mooy tardement bi jógee moom moo xaw a sori Euh, su ko defee Baye Bokar nee na mu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoom la àndal ku si mel ni caatu euh, Baye Demba si nee na bokk na si ñi nga xam ne moom la àndal euh, sëñ Mor Sarr moom it na si Malam Sané Thierno Yaxya ak Mokhtar nee na ñoom ñëpp mu leen di gërëm ak ki nga xam ne moom mooy Baye Awa Ndiaye mi nga xam ne ñoom ñaar ku leen xam. gis nañ ñu ngi liggéey liggéey bu rafet ci pays bi muy Baramien TV kon daal sëriñ bi nee na su amul kaddu bu raw jërëjëf wala kaddu bu raw kontaan na dina la ko wax kon mu lay sant di la ndokkeel kon am na am na loo xam ne moom lañ indi woon pour yow su ko defee ñu jottali li ko rek incha lu tax ñu naan jërëjëfee bàyyi yàlla dafa wax ne soo leen bëggee man yàlla ma bëgg leen mu ne na bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa bàyyi mi nga xamante ne mooy sunu bunt si yonente bi bàyyi dafa wax ne buluutu bi xutbil Mustafa xatmil Ahmada abil kawni wal xalaqi ma farqan wal maxtida bàyyi mu ne buluutu nattu nañ ma man bàyyi xutbul Moustapha ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xatmil nga xamante ne moo xat mu yonent yi xabil kaw ni te mooy bàyyi ak jukka yi wal ak bànkaas yi wal maxtidan ak cosaan yi ñu ne ko loolu kañ la mu ne lam yazal nuuruhu bi ayni ilaahi bi intixaali kaw ni baadal tixaali lam yazal nuuruhu bi ayni ilaahi bàyyi mu ne lam yazal mësta dañ nuuruhu leeram nga moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tuxu ci kaw léegi ba wàcc maam El Hadj Malick bañ ko laajee maaxiyatul xaqiqatul insaan damay dëgg-dëgg kawnu gi dafa ne xaqiqatul kawnu xëy nu zaati talatul xa ifaratika nuurillahi yàllaaw bàyyi mu ne fa waxti wa shahraati saraftu li zikri salaatan wa mahdan wa xasirtu jaanama bàyyi mu ne fa fa waxti samay waxtu wa shahraati ak samay heure mu ne saraftu utilisé naa ko li zikri di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa wa xasirtu jaanama si xaji dëgg-dëgg kaway moo tax bàyyi ne usaajilu bil amdahi kulla xadimu نخير خلق كل يقين وساتنا بأنباء كل قديم وقلب ودر قلب كل يقين تقابل وعشان ونبل ورواء ويصبر بسيرة القديم باي من خمانتنا موي سورو بوندو سيرام دي باي دافا واخني رسول من المولى وهذا ما لم يكن wa yabqa rasuulan daa'iman muxasama mu nekk rasuulan minal mawla yonent yàlla Muhammad mu nekk ndawal yàlla la day def fii ñu koy màggal yàlla sàkk na ko mu xam am risaala yonentam fekk ne boobu yàlla sàkk gul woon maam Aadama yàlla ne na wa maa insaan ñu ne ko bañ mu ne wa maa xalaqtu maa yi doomu aadama yàlla ko bindee mu ne man yàlla ma bind wa maa xalaqtul aadama ala suratihi man yàlla maa bind doomu aadama ak sama suuraat muy sama jëmm bi doomu aadama nag jëmmi doomu aadama fukk ak juróom benn dawaayir nga fi nekk muy daayratul ula daayratul shaani daayratul shaalit daayratul saadiya daayratul rabiya daayratul xamsiya ak dow daayra awaanul ardi samayil ula daayratul ardi samayil shaani daayratul ardi samayatu saayit daayratul ardi samayatul xamsit daayratul ardi samayatul ula araf kursiw yàlla toog ci naa nga naa yàmba kursiw yàlla bi ana lan moo ko téye mooy lan mu ngi ko ëmb muy Mahmoud Mahmoud lan moo téye Mahmoud muy lan muy balxóot balxóot lan moo ko ëmb muy balgóot moo tax balxóot dafa teg ci ñeenti ndëpp tànkam yi ci mbalaan bu xonk cur moo tax ngay xool asamaan si nga yaakaar ne daa bula fekk asamaan si daa xonk moo tax Ibou Samba Diouf mu ne am na benn sirru bu cub asamaan ba mel na bu la baxa mu ne ko sirru ba ngay bawoo mala ko sirru boobu moo di Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu Baye moo nekkoon Azal Ibrahima Samba Diouf dañ ne ko laaj kay kan mooy Baye maam Abdou Niang dafa taxaw mu tagg Baye mu ne Baye mooy alfu salaat مع سلامي على الحبيب سيد الكياري لله ربي على اللقاء أو فرهادي من ذي الأواني بدر البدور بحر البهور فايد الفيور والحبر الحمد لله نجي الله جل جفير باي عثمان nañ dellu waxaat jërëjëfee Baye Ousmane lu tax ñu naan jërëjëfee Baye Ousmane Baye Ousmane Dieng haza maqaamun sharafu laa yurafu fal awliyaahi jamiu min al arafa Baye Ousmane du ku ñu xam adduna du ku ñu xam àllaaxira Seexu Tijaan dafa waxoon sa yabrazu rajulun min taifati la yurafi fi dunya wa fi ahirati taati faydatun ala ashabi hatta yadkhuluna naasi fi tariqatuna afwajan afwajan bàyyi ñu laaj la bàyyi fayda bi ana kan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa min rabbi wa man shakahu haqiqatul mustafa jaali mu ne zalikal fayda gii nii fayda mu ngi bàyyee ko sama wa man shakahu sosuwaay mooy yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nag ñun moom moo ñu diggoon mbir mi ni yonent moo waxoon jaam bi alif laam mim zalikal kitab laa rayba fiihi hudan alif laam mim ñu allahu alam ma ta du dëgg yàlla ne wama farratnaa kitab bi min kulli shay sama alxuraan ba wul dara nañu dem si Cheikh Assane Deme Thierno nee na alif mooy alifatul fardaani laam bi mooy xaqatul muhammadiyya mu ne ko zalikal kitab mooy fayru baa ngees gii فين باين وين ذلك الكتاب يلا نير الف لام ميم ذلك الكتاب لا رين في خلال كيف قلت لهم امول سكنة ما فين باين باين من تلك سوى فين جي مرنا ينقوا باين لو يجيك تكل اولهم اوسع واخر زرما كذاك تغمبا الخير في اما وجعل يربا كذاك تدخلي وفتفر ادو ومرشانغا وقلشي بيالا ساكن سرين خطي مثل طوفو بين سرين سرين سرين سرين yàlla moo ne idaa jaaha nasrullah wan fop fop bi mag na bàyyi moo nekkoon asal Ibrahima Samba Diouf nekk xaamal zaatu bañ fay nekk kuy sa àndandoor mu ne ko guddi ak bëccëg amaa zaatu ma firi pépp yàlla ba mu ne ko xaamal zaatu mooy firi kanjatul wax bi soo bëggee tey xam li kanjatul wax bi mooy topp maniw karawu doomu aadama mu ngi ci yaxu doomu aadama mu ngi ci bëtu doomu aadama mu ngi ci bëñu doomu aadama mu ngi ci biiran ci ëmba ngi ci wuti nañ ci wante boo téye maniw doo ko teg bàyyi fa la nekkee ak zaago taraxal ci jëmi doomu aadama feeñ ci toroxtaan ba bàyyi taxaw yi anal xaq may yàlla bàyyi dal bu kenn dul werante wa ana sirri sir wa tamsam isaarati bàyyi ne alal xaq maay dëgg googu dëgg gi nga xamante ne yàlla waxoon na ne bis boo leen amoon wala xilmul yëpp boo la amoon bët boo la amoon bët a basira di ngeen gis la tara xundal jaxim di ngeen gis safara wa man xaadal jaxalam illaa yomsil an safara si kaw suuf damal daram xoom

waroon nañu wa sajaru yasjudan ak samtu Ibrahima Samba Diouf ne ko samtul maarifi yaa di kaamin yaa di jëmi mbóot maa ka nekk maarifi yaa kaamin yaa di jëmi mbóot sallallahu رب کڈو کو مبارک ري جوتن سنيدم گاليا تو کیا بند سكار تي ورا حقيقت بننا ملا عبد mooy fuyoo daal ak am daal yi nga xamante ne soddeek ñu ngi sant yàlla di jëbbalu di ziyaara Baye Doudou nga xamante mooy sunu taaru jotaay wante Baye Doudou damay wax ne ne dëgg-dëgg Baye Ousmane haza makaamul shaanahu laa awrafu fal awliyaahi jamiu min al arafa Baye ci yéen la ñu mën a xamee kan mooy bu ñu yeggee pour xam ko lu man la caa ca Baye lañ koy wax Baye la dafa xaatar ngir jéem a xam kan mooy Baye mu ne yëwatul nekkinam ba bu ñu bëggee xam Baye Ousmane ci makkaama Ousmane Dieng fa la ñuy taxawtee dañuy yées nan lañ si mun a toroxloo yéen la ñuy Baye Ousmane tànnal Cheikh Assane Dem dafa wax ne laysatu ahadu min awliyaahi man yasuru min ijazaati que Seydi Assane Dem amul benn benn ijaasa bi nga xamante ne dina jërmal ci kaw suuf ba mel na bosu Cheikh Assane Dem Baye moo garanti Thierno. baay dafa wax ne gént naa gis naa sëñ Ousmane Ndiaye ñëw ziare si ma se fajar mu ñëw gis Cheikh Hassan Dem mu ne ko njott naa bégal yow doon nga makam fi na ceena nekk oroon jamono si boobu jamono ba ceern ak sëñ Ousmane Ndiaye génnee daara ceer naa koy wëy ndax lan Cheikhu Tidiane mi nga xamante ne moo moo ñu taxawoon moo juñoon booy borom fayda bi warisal bàyyi moom moo taxawoon udrul kumal mada wa man boqa wa inna kaana sax rijaali as boqi Thank you. fàttali si yàlla bu baax jàmm bi nga xamante ne moo xam Baye Ousmane lépp bu nekkee orom da ko coy su ma xamee Baye Ousmane Baye Ousseynou moo tax ku réeroon la ku fàdduloon la moo dagg sama buumu jàmm moo ñu goreel wante xamal ñu Baye Ousmane ndax ñu duñu ay muxtaar muxtaar kenn al mazahiru salaasita mu taar ñett lañ yonent bi moom la Cheikhu tijaan Mokhtar la Baye la ku dul ñett ñii doo Mokhtaru maam Ibra Fall bu kóosi dafa ne sëriñ ñett ñii la yelente bi sëriñ la inda diina laahi diina l'islam diina yàlla islam islam mooy islam iman ihsan islam dafa juróom ñett iman juróom ñett ihsan juróom ñett muy juróom ñeent muy neuf si yow Cheikhu Tidiane sëriñ la bàyyi ñu ngi sant yàlla di gërëm di am sant yàlla bu maa ngi gërëm bu baax bàyyi doodu caare di la ñaanal yàlla bu baax di leen ziyaara di la wàccee sa wàccuwaay di la gërëm di ñaanal yàlla ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ muy Mawlana Cheikh Ousseynou ñun bàyyi seen moo def ñun lii ñun bàyyi seen moo ñu xamal ku réeré woon yàlla lañ moo ñu xamal yàlla xamal ñu yonent bi xamal ñu Cheikh Diagne xamal ñu Baye Niass ba pare xamal ñu Baye Ousmane nëbb ñu boppam ñu ngi sant Baye Ousmane Ba Baye Ousmane Ba ku baax Baye Ousmane Ba jullit xàqal euh, sëñ Aliou Cissé dafa toog janoo ak ñu ne ko waaw jëmm ji tëdd Ibrahima Niass mii tëdd Baye moom deewul Baye moom ku ne ku ne bàyyi dee na moom yaa ngi safara bàyyi deewul ah, ah. bàyyi deewul de waa ji taxaw ne waaw ngañ naa fi léegi ñu ngi sant yàlla di gërëm bu baax di la gërëm tey yaafi fi wutu sunu baay Ousmane yaa wutu sunu baay Ousseynou yaa wutu suñu baay Dramé yaa wutu suñu Cheikh Assane Dème yaa fi wutu mboole mu jëm yëpp daje si yow Baye dafa wax ne abil abbas yi maskana mumidul kulli tijaani Baye mu ne abil abbas yi mooy ko ñu raxas wante damay wax ne ñun bu dul woon daje guñ daje yërmande yàlla Baye Ousmane ñun mënuñoo seetay ñu ci Cheikh Tidiane ndax Cheikh Tidiane bëri na ay pàq-pàq yu si nekk Cheikh Tidiane xadaraatam ñett ñi ñoo si nekk Cheikh Tidiane dafa am lu nga xamante ne muy ay asxaab am al fukuraaw am ay talaani zëkki asxaab yi nag si la junjoon faydu bi xutbu bu xutbu xutbu abtaab yi mooy a Cheikh Ibrahim bàyyi mooy bu xutbu yëpp demee ba gërëm nag ka leen di fu ñoom jubbanti ñu ne bàyyi nee na moomu yonent yàlla Muhammad daa may ne bàyyi ne ne ko moo fa innaka samsul xaqi sarqam jëmu jooju mooy Cheikh Ibrahim bàyyi nag ba nga laxee dafa ne samsul ba nga laajee kan mu ne ko yonent yàlla a samsul irfaane jaharatan bi hiblati xal bi doona shakkin wa mihrati lama tabadat ama samtin samsuha banat bi samtin a Mustafa yonent bi dafa ne moom àdduna mi àdduna bi du tukki lu dul borom xam-xamu madina dafa feeñ bàyyi wax ne bi xubbi rasulullahi taxlu millatul nabi habasha bi bila tararuni bëgg nga xamante ne bëgg na ko yonent yàlla xamal si la ko am yàlla may dëkkam bi di méttul mun mënta mun na nekk tey mbir na bàyyi dañoo laaj cheikhaani fan mooy Kaolack mu ne bihaa Kaolackun bihaa daa aatu wa siinun wa saalimun bihaa daa aatu afaahu wa tahril jinsi mu ne ko bihaa Kaolackun dëkk bi ñuy naan Kaolack mu ne bihaa daa aatu afaahu moo leeral gox yàlla yi de yàlla moo ne dina la woon sama kaw teef si sama si ak seen gox yi yàlla nee na ëllëg yow man xew asamaan ñu ne jant gi day mooy jant ak bàyyi ñes wal asri inna insaani la fi lu xusir maa ngi giñ sa waxtu ak bàyyi ñes képp ku juddul takk takku saana mooy bàyyi ñes mu ne maa ngi giñ yàlla nee na wal asri maa ngi giñ si si juddoo bàyyi képp ku nga xamante ne yow nit nga ma kan mooy kon nag ñu ngi sant yàlla baax di ziar yàlla nga ñas di la ñaanal bu baax a baax di ziar gërëm bu baax a baax mboolem samay pare maa ngi leen ñaanal yàlla yàlla leeru Baye Ousmane Faye ak yéen man duma dara mboolem njabootu Baye Ousmane maa ci gën a yéesal wante bu sama xol maa ngi gis ci Cheikh Ibrahim bëgguma kenn dugal Baye Niass xamuma kenn ku dul bàyyi duguma lenn lu dul bàyyi gisuma lenn lu dul bàyyi leneen ku waaye am na jël soxla ma man lu bàyyi di may laa soxla ku yaakaar na bàyyi dee na soixante quinze dagg na dagg na ay mbiram mayam nañ téye bàyyi day sotte day may ay mbiram ay fiodaka ba tey ñu xobbeeku ñun ñun bàyyi lañ doomu sedd ni yàlla bu taxawee daw ne fakiru ilallah ñun daw jëm ca bàyyi la ñu def ñu bàyyi mooy suñu zaatu yàlla mooy suñu zaatu laahi baay moom mooy suñu anwaarul muhammadiya baay mooy suñu anwaarul ahmadiya baay ibrahim baay mooy suñu abdu ilaa cheikh abdoulaye wilaan dafa ne yàlla ba mu nekkee ca ndànganaayu kursam bàyyi ñu sant yàlla du gërëm ñëpp ñëpp ñëpp bàyyi sama ba wallahi leeram moom la rek Thank you.